ayca mbokk internet yi safo solution TV euh, solution euh, info.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 ñu ko baaxoo di defee rek euh, émission des émissions ñëw ci beneen formon ñu fas yéene si ànd ak alaaji Sanjoogu Meng ñu fas yéene waxtaane li nga xamante ne ni rek mooy tolluwaayu réew meek kàddu yi nga xamante ne nii dinañ koy faral di gis ñi nga xamante ne nii ñoo di homme politique yi ak chroniqueurs yi def si télé yi ñu koy waxtaanee ba mu gën a leer ak alaaji Sanjoogu Meng balaa ñuy xuus rek dama koy daal di bàyyi mu nuyoog internet yi seetaan solution alaaji ma jigéen ñi ngi fay ñi ngi nuyu sénégalais yi nga xam ne ñi ngi ñuy teewlu nekk ci biir réew ak bitim réew di nuyu tamit euh, techniciens yi nga xamante ni ñoo ngi ci euh, xarala gi di am ci ñoom ñëpp mbégte ak kontaante di nuyu sénégalais yëpp waaye mën a nekk waaye nuyu sunu sëriñ sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad di ko ñaanal mu yàgg fi te ak wér di nuyu njabootam gi yëpp di mm. nuyu sénégalais yëpp waaw jaajëf macha allah kàddu gi rafet na sañ seeti nga ah? merci jërëjëf. <laughs> waaw keñ Mbengue ak Mbour mi ngi noonu tey nag comme ni ñu koy defee rek tey daañu ñëw ci beneen angle waxtaanee ki nga xamante ni nii moo di président Ousmane Sonko jiite parti bi nga xamante ni nii moo di Pastef bu ñuy wax ne dañ ko di dissoudre tey nag lu ñuy def rek mooy daal di révisionner li nga xamante ni nii moo di ay kàddoom yu mu jotoon commencé yëkkati depuis que euh, combat am bi muy mënee ci biir Sénégal ànd kook ndaw ñeek mag ñeek waa diaspora bi loolu lañu ñu fas yéene daal di waxtee waxtaanee tey jii nii ba ca njëkk nag mooy euh, fële nga xamante ne nii doon nañ fa amal seen méga bi moo di Kër Massar mu yëkkati woon fa ay kàddu jëmale ko ci jeunesse bi dañuy dem daal di ànd ak Mootu Diouf fo xool ko daal di dellusiwaat. waaye dama de yéen fi ne. ak sénégalais foo ci nekk ci Sénégal ak suñu mbokk yi nekk ci diaspora yi est-ce que pare ngeen est-ce que pare ngeen daañu xeex de ci mi ngi noonu est-ce que pare ngeen foo ko déggee fu nekk alaaji nag xel day daal di dem ci euh, combat bi nga xamante ni Ousmane Sonko depuis mu commencé politique mi ngi koy mëne mu seetlu ni nag ba mu demee Kër Massar kàddu yooyu mu yëkkati woon est-ce que mi ngi am njëriñ ba tey jii nii ci societé bi alaaji. waaw xam nga <clears throat> Ousmane Sonko de dafa yëkkati euh, ay kàddu. Mm. Euh, mu nekk kàddu yoo xamante ni. Euh, ci pénc mi la ko yëkkatee mm-hmm. jëmale ko ci ñi nga xamante ni bii euh, ñooy ay ñoñam mm-hmm. euh, ma jàpp di kàddu yi nga xamante ni moom la yëkkati mm-hmm. bokk na ci li nga xamante ni bii rek moom la ñuy wax ci wàllu politique parce que politique dafa am noo xamante ni bii noonu la tëddee damay doon faral di wax am na ay jamono ci xumbuta dagan damay imité woon Moustapha Niass mu daa dee wax benn wax boo xamante ne bi ci biir wax ji man maa ko doon wax nekkul toon Moustapha Niass maa ko doon wax. Hmm. kenn du ko wax ci rajo. déedéet maanaam nit ki li mu nar. Hmm. ak ni mu bëgg a doxalee. Hmm. du lu muy wax ci pénc bi. pare ci ban forme pare parce que defe naa ni pare dafa bëri ay. Euh, façon yoo xamante ni kii mais nag nit ku ne am na koo xamante ni am na fu mu jëmale jëmle pare bi. parce que tey jii ñu ngi toll ci situation boo xamante ne bi ci réew mi eh, ñu bari boo leen déggee ñuy wax dañ lay wax ne la hmm. xeexu patriote yi ki ci gënoon a ku ci waroon a gën a bénéficier wu mooy le président Macky Sall ñàkk xeex gi am na loo xamante ni bi tey eh, ñàkk maanaam li ñuy tuddee xeex mooy li nga xamante moom la nit ñi di wax génn ci bedd mi désordre am dëkk bi dootul nekkati dëkk boo xamante bi dëkk bu ànd ak dal la léegi bu ko defee nga xamante ni am na yoo xamante ni mën na ko teg pour fas yéene ñu ne ah dëkk bi amut jàmm il faut que ñu jéem a xool nu ñuy waxtaanee élection mënatul a ne dëkk bi nekk ci kaaw boo xamante ni bi moom mën na amaat retour que ni ñu ne ah kon nañ ko mayeb diir ngir ñu régler situation yi. Mm. peut-être que ni tey xeex ki mu gënoon a jariñ. mooy ki nga xamante ni ki mooy président Macky Sall ñu bari nag du ñu dégg li nga xamante ni bi mooy mbir moomu parce que ñu ci bari dafa am neneen noo xamante ni bi noonu lañ gisee mbir am na ñoo xamante ni bi tey ñi ngi ne euh, askan wi nga xamante ni bi ñoo doon ba max Ousmane Sonko maanaam est-ce que askan woowu nekkul ni euh, dañu ko seetaan dañu ko wor dañu def lii mais boo xoolee xam ne askan woowu même bu fekkente ni bi tey gisoo dara da ngay gis ni am na loo xam ne yaa ngi koy sentir ci askan wi. Mm-hmm. gis ni askan wi fa ñu nekkoon foofa la ñu nekk maanaam fa leen Ousmane ko tolloon démb ak bërki démb fa leen toll léegi nag est-ce que parewu leen léegi est-ce que parewu leen boobu su fekkante ni bi da nga ko jël ci wàcc ci mbedd mi. est-ce que kon euh, am na yu bari yoo xamante ni bi man jàpp naa ni bu fekkante ni bi da nga ko jàngat ne wàcc ci mbedd mi kese la man pour man boo defe naa ni euh, du loolu kese est-ce que pare ngeen boobu mm-hmm. mën na signifier leneen. loo xamante ni bi peut-être nekkul ni loo xamante ni bi moom lay wax ci pénc mi hmm. xam nga li xew tey mooy li xew tey mais li xew ëllëg leneen la te dafa am lu bari loo xamante ni bi dafa am parce que nekkul ni bisub tey tey bii waa parti Pastef dañuy pare jot ci nguur gi tey tey bu hmm. boobaa loolu coup d'état tudd te bul fàtte ni Ousmane Sonko am na loo xamante ni bi waxoon na ko waxoon na ni du jël maanaam bi mu ne nañ leen gunge président Macky Sall parce que am na noo xamante ni bi bu ko yëf waddee ci loxoom euh, du nekk loo xamante ni bi lu baax la maanaam nañ leen ko gunge mooy euh, mars deux mille vingt et bi mu wax nañ leen ko gunge li ko fi dese baliwut ba deux mille kii ñu wàcce ko bu ko defee daal di jël li nga xam ni mooy nguur gi mm-hmm. est-ce que parewu leen boobu est-ce du foofu mooy li nga xam ni moom la wax parce que lële bokkoon na ci li nga xam ni wax na ko mm-hmm. defe naa ni est-ce que parewu leen boobu mën na bañ a signifier que ni nañ leen pare pour dem jëli ji li nga xamante ni bii mooy nguur gi ci jamono ju ñu nekk nii nag bon ñu bari dinañ leen non saa daal li muy wax nii waxu ku daanu ci sareet la mais loolu mooy li nga xam ni mooy charme bi loolu mooy li nga xam ni mooy sens bi xam nga lu tax mm. parce que wolof day am baat yoo xam ni da ko wax day wax ne bu nit ñi xamee fa nga jëm doo yegg mm-hmm. pakk pakk day am ay gal galgal yoo xamante ni bi am na ci suuf mais yan jéego nga war a teg pour mën a yegg fa nga xamante ni fii fan nga jëm pare fan lañ war a pare ndax dañu war a pare physiquement wala mentalement pare dafa am yu bari yoo xamante ni bii daf koy signifier hmm. léegi nag yooyu lan la bu fekkente ni bi tey nit ki dafa jël ni pare bi moom leen rek la mooy xeex xeex bu fekkente ni bi waa ji waxoon na la ci biir communication wane ni xeex bi du solution nañ leen bàyyi ngir ñu jël nguur gi ci yeneen anam. Hmm. yoo xamante ni bi mooy anam yu gën a loolu. donc il faut que ñu yóbbu waat tamit wax ji gën koo yaatal bañ a jël focus rek ci ni mbir mi lenn dong nga ko mën a amee mooy façon xeex bi rek xeex yi bëri nañ ay forme de lutte am na yeneen façon yoo xamante ni bi nit ki uh-huh. mën na koy xeex. yu bokkut ak peut-être yow li nga xamante ni bi moom ngay tuddee xeex wala ki nekk ci mbedd mi wala ki jàppoon ki bi jàpp ni moom mm. mooy lakk mooy taal mooy kii mais am na yeneen forme xeex yoo xamante ni bi mm. am na ci àddina mais alaaji xeex boobu ngay wax am na solution yu yu mu juróon parce que 2021 ñëpp xam nañ ni bi ñu ko tegee loxo xale yi dañu wàcc ci mbedd bi bàyyi wuñu ne tant que bàyyi wuñu waa ji duñu duñu bàyyi bi ñu bàyyee ñu seddal ñuy dox di dox di dem ba tey jii nii saa su mësaan woote wala dara mës a xew rek su woowee jeunesse bi ngir ñu génn dañuy génn mais est que nekkul du jeunesse bi ñoom ñoo épuisé sonn ci li nga xamante ne nii moom moo di combat. waaw xam nga am na xeex yoo xamante ne bii ma jigéen euh, mënul continuer di di continuer di ne. Hmm. déedéet dafa am xeex noo xamante ne bii noonu lay demee. Hmm. dafa am ñaari mbir yoo xamante ne bii am na. Hmm. xeex bu njëkk bi xeex la boo xamante ne bii tey boo dugaluñu Ousmane Sonko parce que loolu après temps daf ñu dafa jox ñi nga xamante ni bii ñoo ñi àndoon ak Ousmane Sonko yëpp daf leen a jox dëkk muy lan parce que bu doon jàpp nañ ko ci wàllu viol day ñaaw trop day salte bu fekkoon ne dañoo tëj Ousmane Sonko ci dafa violé xale bi day salte te bu fekkoonte ni bi tëjoon nañ ko ci anam yooyu dafa nekk loo xamante ni bii baaxut kon donc gars yi foofu la nga xam ni moom la ñu xeex am nañ ci ndam parce que li tax ñu am ci ndam mooy tëjuñu Ousmane Sonko ci wàllu viol parce que loolu écarté nañ ko ba bi nga xamante ni dem nañ ba àtte écarté nañ viol écarté nañ li nga xamante ni bii moom la ñuy wax menace de mort indi de la jeunesse et cetera. Mm. loolu mooy li nga xamante ni bii moom lañ teg kon donc foofu am na fa la nga xamante ni bii mooy ndam te loolu nag li ko ko li ko may mooy sénégalais yi nga xam ni jógoon nañ mm. daal di wax ne kenn du ko fi tëj. mooy ñi nga xam ni gëmuñu ko gëmuñu woon ni loolu am na mhm. ñoo ñu isto kii jox na leen raison maanaam temps bi jox na leen raison parce que li ñuy wax ne temps day àtte parce que tey jii liñ naan yàgg bawul dara am na ñoo xamante ni bii tey nappaaje woon nañ leen ci ay jamono ñu dem ba ci biir jamono di dox bañ mujj euh, lijjantiwaat seen mbir ci yeneen anam yoo xamante ni bii tey bu fekkoon ne amoon nañ lu Ousmane Sonko am peut-être kon mbir mi doonul woon demee noonu am na ñoo xam jàpp nañ leen fi ne leen ay sàcc ngeen tëj nañ leen ci ne ay sàcc lañ ki leen tëjoon xëy bés ne leen. raxas naa leen. Mm. mais léegi est-ce que askan woowu gëm na ni ñii ñoom ñu set lañ. Mm. c'est que loolu mooy problème mais ñeen kii nag askan wi dañu gëm ni lii ñu koy tuumaal taqewuk ci. Mm. lii ñu koy tuumaal amut. ba dem ba ki nga xamante ni kii mooy jëmmi ndaw soosu. wëlbatiku woon wax ni moom ci jëmmi boppam daan ne man mii de euh, ci ay audio yu ñu dégg. ne sequt ak moom dara ba noppi wëlbati wëlbatiku ne dama doon kaf mu nekk loo xamante ni bii ca kaw àtte ba tamit leeral nañ ñi lem doon wax dàq nañ ko loolu amul donc yooyu ay mbir la yoo xamante ni bii am na ko mm-hmm. mais pendant ce temps dafa am leneen loo xamante ni gars yi dañ fay daw laxas maanaam gars yi bu ñu perdee fii rek dañuy dem fële mm. gars yi dañu laxatuwaat encore ci ni euh, waa ji nitu fitna la nitu ay la nitu kii la tey jii yi nga xamante ne bi sax même biñ ko condamné ci euh, li nga xam ne moom lañ ko jàppee ni bërki Demba Ndiaye chef d'accusation waaw yi nga xam ne moom lañ ko jàppee ak li ñu teg ci moom lépp ñi ngi lay wan ne la nit ki nitu fitna la nitu kii la mm. léegi nag li ñu def ak li ñu accéléré yépp dëkk bi ne teg dara xewul boobu ba nëgëni mm. mu mel ni am na yu xew ci ay bërëb am na ay nit ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan yàlla nañ sunu borom xare àjjana am na ñeneen ñoo xamante ni bii tamit am na ay jaf lu ci mel ni ay Casamance ak yooyu yëpp am na mais li ñu bëggee woon dëkk bi dugg ci kii bu boobaa kan moo ci doon profité wu parce que di mamaa ko moom Ousmane Sonko moom jàpp naa ni fekk demut ci ay élection xalaatut ngir jël nguur ki mm. xalaatut jël ko ci beneen anam kon donc moom li ko gënal mooy mu dem ci ay élection te aw yoon wi nga xamante ne bii moom la ñuy teg pour élection am yegg see guñ ca. mais laa est-ce ñàkk xeex bi tamit jural lu ko tas partem bi ba tey ministre de l'intérieur génne ab communiqué buy wane ne moom mi kat dootul mën a bokkati ci ci ci yile élection non seulement dootu ci bokkati mais dootul am sañ-sañu sax di votel kenn. waa xam nga yooyu yëpp ñun gis nañ lu bari ci àddina bi àddina bi lu ne xew na fi. Hmm. lu ne xew na moo tax ma lay faral di wax ne. Hmm. loo xamante ni bii rek. yeggaguñ ca bul ne nii lay demee lu ne xew na fi hmm. Alassane Ouattara mii nga xam ne mooy nekk président Côte d'Ivoire am na jaar-jaar boo xam ne bii demoon nañ ba ne ko yow doo Ivoirien hmm. burkinabé nga dem nañ ba éliminé woon ko hmm. tey jii mooy ki nga xam ne mooy président Côte d'Ivoire ba noppi def troisième mandat kon lu ne am na ci àddina dama lay wax ne la jamono ji nga xamante ne bi moom lañu ñu li xew ëllëg ñiy def li ñu bëgg mu xew ñu ngi def liñ bëgg mu xew mais est-ce que loolu mooy xew àddina dafa tëradi mën na situation yi mën am na ay jamono Khalifa Karim bi ñu leen di écarté ci li nga xamante ni bi moom la ñuy wax kii bi mm. ku leen waxoon ne leen ki leen écarté woon ci jamono ji mu leen di écarté bu ñu leen waxoon ne leen dina dem ba soxla leen mm. doo ko gëm dëgg la te tey jii dem na ba soxla leen di ko fajee mer kon lu ne mën na ne mm-hmm. moo tax nit ñi di war fu ñu toll di xalaat ni Euh, fekk yoon jeexul wolof day wax ne bu yoox jee jeexul waax sul du wees kon na nit ñi tenir compte ci lool uh-huh. te man jàpp naa ni am na lu bare bari loo xamante ne bii tey uh. Sénégal am na nu muy surmonter problème bi mm. jóge ci ñu dal ci leneen mm-hmm. Sénégal mën na fay jaaree defaru ba faw parce que am na lu bari loo xamante ni bii mm. mi ngi feeñ masque yu bari ñu ngi wadd mm-hmm. Sankara da doon wax ne jamono joo xamante ni bi accélération baa ngi gën a dem rek mhm. à chaque fois dana am ñoo xam ne danañu wadd te des na ñeneen ñu war a wadd man jàpp naa ni du ñëpp ñooy yegg fii wak ñuy yegg ci deux mille vingt quatre am na ñeneen ñoo xam ne danañ wadd yeneen masque dinañ wadd mhm. am na parce que Sonko tey surtout fois que kenn mënut ci moom dara mhm. bu boobaa état mooy nërmeelu te état nag warta nërmeelu kon yii nga xamante ni bii xew na. Mhm. am na loo xamante ni bii tamit euh, bu ëllëgee mën naa defar lu bëree bëree bëri. d'accord mën na defar lu bëree bëri bëri combat bi muy woote nag moom mel na ni gars yi ñu ngi ko si wuy si bu baax a baax ndax gouvernement Macky Sall ak kii ñoñam ñu bëri boo seetloo saay su génnee wax rek di nga gis ku génn tontu ko ba euh, suñu euh, nijaay jooju di nijaay sooy bu jóg Moustapha jaxate am na kàddu yoo xamante ne nii yëkkati woon na ko ngir rek ñu jàpp Ousmane Sonko bu amee lu mu jar sax daañu ko def ngir ñu jàpp waa nañu dem xooli extrait boobu daal di waa ak alaaj sola Ousmane Sonko danañ ko jàpp ñu ñuy jaay nee na dañuy xaru ñu mën a doon bis bu police ak gendarmerie jógee ñu ci war a jàpp daañu jàpp ñu ngi ci war a delloo seen kër daañu leen delloo seen kër ñu ci war a rey daañu leen rey sola Ousmane Sonko danañ ko jàpp ñu ñuy jaay nee na dañuy xaru ñu mën a doon bis bu police ak gendarmerie jógee ñu ngi ci war a jàpp daañu leen jàpp ñi ñu ci war a delloo seen kër dañ leen delloo seen kër ñi ñu ci war a rey dañ leen rey. soxna Ousmane Sonko danañ ko jàpp. Aïcha mi ngi noonu dinañ ko jàpp te mel na ni nag état bi benn part alaaji gagné na ci euh, lii nga xamante ni nii ñoom ñoo ko doon wax euh, bien avant ñuy bunkeriser buntu këram ak euh, ba jàpp ko ba wax ko yóbbu si biir xutaan est-ce que tamit boo génnee ci aspect bi nga doon waxee sànq état bi ñoom it tamit amuñu pas bu ñu teg ba gañee kii nga xamante ne ni moo di président Ousmane Sonko. waaw man damay wax ne euh, yàgg naa ko wax ne mënuñu gagné. Hmm. waaw combat la boo xam ne euh, ci côté bu ne looy perdre rek moo ci am mais pour nga gagné problème la. mais ñoom li bëggoon am nañ ko de. waaw li am li nga bëgg. wala yow yaa jàpp ni am nañ li ñu bëgg pareen saay li ngay jàpp ni nit ki am na lim bëgg léeg-léeg nga gis nit mu yor këram gu af rafet otom bu kii dëkk ci loolu nga ne réussir na hmm. fekk ne bu la mënoon jox li mu am hmm. nekk sa position da koy def hmm. pareen saay li ngay gis du loolu mooy li nga xamante ni bii mooy li am réellement yow yaa jàpp ni am nañ liñ bëgg Eh, Sénégal nag ma wax la leen politiciens yëpp leen rek lañu bëgg mooy askan ànd ak yow ak ku mën a doon ci àddina mooy askan ànd ak yow askan gëm say wax askan nekk ñoo xamante ne bii dañ lay topp loolu fekk kuy jiite amoo ko amoo li nga bëgg mën nañ la sauver l'apparence nag di toog ci plateau yi di fëgg seen dënn ak a kañu mais li ñuy kañu bu ñu toogee liñ naan ku wéet sa bopp xam sa bopp bu ñu toogee dinañ yëg ni nekkuñu ci li nga xamante ni bii li ñu bëgg dëgg amuñu ko parce que <laughs> li ñu bëgg xam nga mooy lan mooy li ñu bëgg dama lay delloo si waat li ñu bëgg mooy tëjoon Ousmane Sonko mhm. ci ne violeur la askan wi yëpp jéppi ko na ca mbay ki ndekete li muy jóg di laaj réew mi mhm. ndekete yu nii lay def jigéen ñi ak góor ñi ñëpp bañ ko système boobu foofu lañu jaar pour ñu am loolu amuñu ko lii ñu ko jàppee. est que gënul di si démboo Njaay waaw non c'est lii ñu ko jàppoo jàppee. oui Abdoulaye da ko wax président Macky Sall wax ko. Mm. ñoom Khalifa Sall ñuy wax ko. Mm-hmm. Barthélémy mi doon wax démb wax ko. Mm-hmm. ñëpp wax nañ mu yi nga xam ne moom la Ousmane Sonko wax muy ay moowu politique ay politiciens yuy wax dinañ def lii dinañ def lii mais dinañ def lii foo dégg ku koy wax daanaka du ko def mais ay wax la ay message la yu ñuy sànnante ñoom politiciens yi ki jiite di capter message yooyu di jéem a tegu mbir yi ci yoon di xam ni kat lu mel ni mën na ne te lu mel ni baaxut ci kenn te baaxut ci réew mi yooyu nga xam ni bii tey. Abdoulaye Wade bu ci toppoon président Macky Sall du nekk président tey yooyu foofa lañ ko dugal pour jéem koo téye maanaam mooy dañoo amul li leen gënal ñu jàpp ci li fi sës li fi sës nag mooy loo xamante ni bi tey araamal nañ discours politique maanaam politicien di ko tenir ci mim réew maanaam loolu mooy li nga xam ne moom la ñu araamal parce que bu ñu xefee ñeneen danañ waxaat wax jooju te bés buñ ko waxaatee dañ leen a war a jaarale fii ñu jaarale Ousmane Sonko kon li ñu bëgg parce que lii lu leen di dab la maanaam tey nee nañ dañ ciy régler problème mais ëllëg da leen di dabaat ñoom ñii nga xamante ne bi ñu ngi ci classe politique bi ñoom ñëpp ëllëg lu mel nii mën na leen a dabaat ci yoon wi kon bul jàpp ni am nañ li ñu bëgg déedéet Moustapha Diakhaté euh, lii mu wax nii mm. maanaam daf cee am certitude maanaam boo déggee mu wax maanaam li mu wax nii ak li xew dafa lay wóor ne la bi mu lay wax xam na ni yëf yi war a demee mm-hmm, mm-hmm. donc lii lu ñu préparé la mm. woon daal di xamal ni yii la nii la yëf yi di demee moom mu mën a ñëw jàkkaarlook nit ñi wax ko moom nag laa yërëm parce que war na dépasser fu mu doon waxee wax ju mel nii parce que war na ko jombale boppam parce que dafa am loo xamante ni bii ci àddina mm. bul nangu mukk di liggéey yenn façon liggéey yi mm. maanaam fekk lu mel nii tey ñu ne la wax ko yow mii li ngay doon doon ndaw ak position bu ñu la mënoon teg yaakaar naa ni bu ñu la waxee ne la ñëwal wax lii. dinga non ko jombale sa bopp. donc nag moo tax ma ne la mag la moo xam ni yërëm naa ko. Mm. parce que waroon na jombale boppam wax wax ju mel ni parce que tey. Mm. képp koo xam ni sa doom faatu nga ci. Mm. maanaam boo gisut ka ko faat. wax ji bu ñu la ko tegalee. da lay delloowaat lépp boo deful ndànk moom mii ci jëmmi boppam moom ngay xoolee mbir mi. te donc loolu dafa nekk loo xamante ni bi tey warutoon a nangu di porter di wax yenn wax yi. Mm. mais du moom kese nag. ñeneen waaw mook ñeneen ñi ko wax ñëpp. mais bokk na ci ñi ci gën a fës moom ak Cheikh Yérim wax nañ wax yu demee noonu. Mm. ba ne bu ñu doon rey nangam ci askan wi. Mm-hmm. yooyu yëpp mu nekk ay wax yoo xam ne mi ngi ci pénc mi. Mm. te wax yii dina leen dab ëllëg fa mu leen di dabee nag xaw ma ci lu mu leen di fekk waaye ay wax la yoo xamante ni bii tey nit dina wax dara wax jooju wëlbatiku. Euh, mu regretté ko mais te jamono ji nga xam ne moom lañ nekk bu njëkk ba sax mën ngaa réccu nit ñi fàtte wala nga tuxu nit ñi fàtte mhm. mais tey jii lii moom mënoo tuxu mënoo dem fenn yaa ngi ci dëkk bi mu ngi ci internet bi mhm. foo tourné nit ñi di teg say wax di wax ne jamonoy sàngam ana taxawaay ban la ci diw amoon ñu ne déglu leen ko lii la ci amoon ci jamonoy sàngam bu njëkk ba dañ laa ne sa maam nii la daan def sa maam tey dañ naan la sa maam a ngi playal la ko nga déglu sa maam ci jamonoy sàngam bi ñaan révolution nga xamante ne bi askan wi di xeex ngir lii nit ñu bari taxawee nii ñu la fan la ci sa maam féete woon doo nekk ñaan sa maam nii la dañ lay playal sa maam dootul soxla géwél taxaw di la wax naan la sa maam ay diw ak sa maam ay diw ah, waaye sa maam la ñuy teg muy wax d'accord alaaji ñoom <laughs> fi nii ñoom dañoo jàpp ni ñoom ñoo nekk ci dëgg parce que koo si dégg muy wax dafay wax ni jàpp bi ñuy jàpp Ousmane Sonko ak li mu doon def di woote appel à l'insurrection demande sociale la est-ce que dinañu am lu ñuy regretter demain. waaw dëgg moom leneen la waaye dëgg moom ki ko am sunu borom rek ko ko xam. Hmm. ana moo am dëgg. waaye li biir te leer mooy li askan wi jàpp moom ci jamono ji ñii moom wax dëgg fa yàlla seen doxalin. Hmm. Euh, nekk na doxalin woo xam ne jàpp naa ne askan wi rafetlu wuñ ko. Hmm. d'accord mi ngi noonu ay ca kon nag dañuy desandi ba tey rek euh, ci Ousmane Sonko moomule. Euh, Alaaji est-ce que quelque part tamit nag euh, Ousmane Sonko deful erreur ci ci ci façon discours yi mu doon discours ba tey jii nii finalité bi moo dem ba dugal ko kaso ba ay ndawam toog mel ni ku xaw a jaaxle. waa jaaxle euh, mënul ñàkk dafa mu am. ci nit ñi ku ci nekk fi niveau bi nga xamante ni bi moom nga toll parce que ñëpp ñu bokk nekk ci même longueur doon hmm. ak tamit même gis-gis mais euh, parfois dafay am lu bari loo xamante ni bi ci àddina nit ñi dañuy faral di fàtte defe naa ni bu fekkente ni bi histoire yu yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa mu génnee àddina mm-hmm. euh, defe naa ni am na yoo xamante ni bi tey mm-hmm. euh, ñoom Omar fàtte woon nañ ko ba Aboubacar moo leen ko fàttali mm-hmm. wax leen ne leen ku doon jaamu yonent bi génn na àddina ku doon jaamu yàlla nag yàlla mi ngi fi tudd fi jóg ba Omar wax ni dafa fàtte woon ni ndeketi ki maanaam euh, jàng na ko mais fàtte na ko. Mm-hmm. am na ñu bari tamit déglu nañu Ousmane ko mais dégguñu ko. am na nag ñoo xam ni jàpp naa ni dégg nañ ko. Mm-hmm. parce que li xew nii. Mm-hmm. yëpp man bi ma dégloo parce que ma damay faral di wax ne. Euh, ñi nga xamante ni ñooy ñi ànd ak Ousmane Sonko dañ demaat revisiter maanaam dem teewluwaat dégluwaat mm-hmm. li Ousmane Sonko doon wax parce que fi réew mi toll nii yëpp dafa mel ni waxoon na yëf yi ni nga xamante ni ne nii lay demee ci kaw nii lay demee nag wax na leen ne leen xeex bi ay stratégie la ay pexe yooyu teg ay moment xeex bu gudd la waxu leen xeex bu gàtt la mm-hmm. dana leen xeex bi xeex la boo xam ne xeex bu gudd la du xeexu benn fan du xeexu ñaari fan am na ñu bari nag ñoo xamante ni bi ñoom dañoo defee ne da ngay xëy benn fan rek taal pono def lii eh, yàq ay bagage dafa war a jeex ci saa si waaw bu boobaa nag ñun ñoo xar a xam ne nag kon réew mi xanaa kon du réewul <coughs> am na yoo xamante ni bi tey eh, ay mbir yu bari mi ngi ñëwaat ci kanam xam nga gis nga ma jigéen hmm. ma dama jàpp ni eh, président Macky Sall jamono ji mu naan le cas Ousmane Sonko est terminé pare na ci. Hmm. ci lay soog a tàmbali. Hmm. Ah, nag waaw parce que actuellement. Ah. ba léegi mi ngi ci cas Ousmane Sonko pareegul. <laughs> Euh, li tax pareegul. <laughs> nee na tëj nañ jàpp nañ ko tëj ko. Ah, waaw ñoom loolu la nekkoon seen objectif tas nañ parti bi de noonu dëgg tas nañ parti bi. nee nañ dañ koy génne. ci li nga xam ni moom la ñuy wax. liste électeur nga xam ne léegi mën a tuta fal mën a tuta follee léegi nag bu demee nag ba pare hmm. léegi ci lay soo a tàmbali hmm. loolu mooy pare na hmm. waaye pare wut mi ngi soog a tàmbali xam nga Sénégal euh, Ousmane ko dafa ñëw wax benn wax ne benn problème la réew mi am mu ne problème bi mooy président Macky Sall mooy problème bi loolu Ousmane ko di wax daal lenn rek mooy problème mu Sénégal mooy président Macky Sall ñi amoon problème nangul ko loolu muy ki nga xam ne mooy Khalifa sàll ñoom Karim Wade nangul ko mooy ñoom ñoom kii ñëpp nangu ni président Macky Sall moom mooy problème bi. Mm. ba tax ñoom ñëpp ñu daa dee ànd daanaka. di lijjanti problème Ousmane Sonko bi mu demee ñeneen ñi nga xam ne ànduñu woon ak ñoom sax da nekk ku àndu toog ñun. Macky Sall nga àndal ba ñenn ñi sax ci opposition bi ñeneen ñooñu. Mm. nee nañ moo leen xañ li nga xamante ni bii mooy ay vote parce que daf leen a lëkkale ak Macky Sall. Mhm. parce que ñooñu tamit kon d'accord nañ ni Macky mooy problème bi. Mhm. donte ànduñoo moom. Mhm. kon donc ñoom dañu jàpp ni dafa jàpp ni président Macky Sall mooy problème président Macky Sall nag dafa jouer benn carte boo xam ni. carte bu extraordinaire la. boo xamante ni bii ci la yóbboo ñu bari ardo muy que ni man duma problème bi mais Ousmane Sonko mooy problème bi. ci kaw mu ne Ousmane Sonko mooy problème bi woo ñi mu tegoon problème régler seen problème mm-hmm. li waa ji naan da ngay am sa problème mu régler sa problème ba dootoo am sa problème mm-hmm. <laughs> waaye xaw ma lan Mandiaye no problème mais nag bi nag du Mandiaye no problème mais président Macky Sall daf ñi mu tegoon problème mu rek teggi seen problème mm-hmm. pour régler ko problème bi nga xam ne mooy problème am dëgg moom muy Ousmane ko moom problème am Ousmane Sonko la du ñee mooy problème léegi nag jamono ji nga xam ni jàpp na ni. Mm. problème jeex na. ba léegi nag dafa war a tegalay tànkam. Mm-hmm. moo koy permettre mu demaat ci yeneen i gis-gis ak yeneen xalaat. d'accord yoo xamante ni bii tey. Mm. fekk bu Ousmane Sonko kaaw Ousmane Sonko jeexalu ko. Mm. projet yooyu di ubbi parce que tegoon na ci kaaw Ousmane Sonko ñaar. que ni ñaar yi moo mën a ne. damay jàpp Ousmane Sonko dëkk bi tàkk. bu dëkk bi tàkkee mm-hmm. ñu woote négocier. bu ñu négocier ma daa dee téye réew parce que élection xaju fi mm-hmm. ñu puus ko ñu may ma benn deux ans mm-hmm. ma gérer jéem a régler xool nu ma ci génnee léegi nag def na boobu doxut mu ne au bu loolu amut léegi bii lay ñëw que ni parteem amuñu ba tey candidat wóoluwut bàyyi leen ak ñoom xalifa ak ñi ñuy waxtaan nag alaaji kuy waxtaan te pare goo kay sa candidat mënagul a génn waxtaan wi dafa am ñoo xamante ni bii tey ci biir waxtaan yi ñenn ñoo xam ne ruube moo leen tax a jóg. du ñu ay candidat mais dañuy gësëm kan moo nee naa dañuy gësëm garab gi xool kan moo bëgg ak kan moo kii mais président Macky Sall man gëm naa ni. Mm. Euh, boo deful ndànk mooy nekkaat candidat benn Benno Bokk Yaakaar alaaji ci ku taxaw ci kanamu Sénégal yëpp ci. waaw mais loolu yëpp day am condition day am ay mbir yu koy waral rek. loolu yëpp li taxoon mu bàyyi. Mm. moo koy def candidat li taxoon mu bàyyi du lenn lu dul pression Ousmane Sonko moo tax mu bàyyi. Mm. du leneen. Mm. parce que bi muy bàyyi da ngay yëg ni kuy bàyyi lu ko neex a ngi ne bàyyi na. mais pression bi nga xam ni moo fi nekk. mu jàpp ni le cas Ousmane Sonko bu fi nekkee. boole kook troisième candidature am ñaar yi mënu leen a régler ndoo. Mm-hmm. donc il faut mu régler benn. ba noppi soog rek maanaam jël candidature am muuree ko bëtt nit ñi. régler bu Ousmane Sonko. léegi nag bu paree nag day muriwaat. mais loolu tamit bu ñu demee ba àgg foofu ak moom est-ce que tamit du ñu delluwaat ci cadre de départ bi bu boobaa problème yi gën a déclenché. waaw moo tax ma ne la c'est que nit chaque jour day bëgg plus plus li mu bëgg maanaam buy def dara muy nooy di neex day dolli dana dolliwaat dana dolliwaat bu boobaa nag ñële nag ci la ñuy soog a yëg ni ah bon. ndekete kon li ñu Ousmane ko doon wax dëgg la. ndekete du problème bi ndekete problème bi lii la mm-hmm. te bon après on va voir. incha allah incha allah ci kàttanu borom bi. <laughs> yàlla yàlla mottali. amiin <laughs> yaa rabbi jërëjëf Mbengue. <laughs> <laughs> en tout cas am na solo j'espère que nit yi dinañu dégg bu baax a baax fi yi Sanjogu Mbeng di waxee euh, mu nekkoon nag émission des émissions tey nag ñu doon jàngataal kàddu yi nga xamante ni Ousmane Sonko euh, dooree na ko kombaawam ba tey jii nii mu fekk ko fële ca si biir xutaan ñi ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yéen ñu ñu doon suivre euh, suñu ay internautes di commenter woy leen di abonné di jaajëfal nag El Hadji Modou Diouf Abdou Top ak Abdoulaye Diallo di leen jox di daj yi beneen altine ci l'émission des émissions